naa ni am nañu daje bu am solo bu ñu am ci njiitalu ministre des infrastructures muy monsieur Mansour Faye ànd ak nag préfet wu Dakar ànd ak responsable wu Ageroute responsable lu CETUD ak ñi nga xam ni ñoo waroon def liggéey boobu liggéey bi lan la woon dañu waroon def foofu benn autopont mais autopont boobu day lëkkaloog autopont bi ñuy war a def fii ci front de terre bi ak beneen autopont bu ñu waroon def booru école normale supérieure mais boo xoolee liggéey bi fii ci Liberté 6 tàmbalee ci géejawaay ba fii état bi aussi dafa am beneen programme bu ñuy wax BRT bus rapide transit buy jaar foofu ñoom ñi gis ni comme que BRT bi dafay jaar foofu autopont yi bu namee dem foofu autopont ba ñuy def booru école normale supérieure amatul solo mais bu fekkee ni autopont ba ci école normale supérieure amatul solo ba jaratul ñu koy defar te fii tàmbali woon nañu liggéey bi jàpp nañu ni bii aussi solom dootul bari lool ndax boo fi defee autopont oto yi di wàcc di dem boor école normale supérieure bu ñu àggee ba foofu dañuy taggatem bi kenn du dem kenn du dikk donc kenn du xam lu muy nu lu dul sabar gu tas ñu ne nag comme que tàmbali nañu liggéey bi gas nañu yëkkati nañu pus poussière bi indi nañu ay jafe-jafe ñi dëkk ci wàll googu ba ñoom xamatuñu woon naka la mbir mi di demee am na ci bari ci ñoom ñu ñëw fii di ma laaj ni dañu dégg ni dañu arrêté travaux yi lu xew ma ne leen man day jotuma benn kayit buy wane ni arrêté nañu travaux yi ndax am na ay jamono place boobu ñuy wax pharmacie Medoune Thiam jàppoon nañu ni ñun war nañoo mën a taxaw tabax foofu maire yi jëppal dëkk la mais Ageroute xamaloon nañ ci ay jamono ni loolu mënut a nekk ndax état bi dafa am programme bu mag programme bu mag boobu moo doon autopont bi bi loolu amee aussi. jéem nañu jokkaloog responsable Agirut yi pour xam mbir mi lu tax mu taxaw mais kenn wax ñu ci wax ju leer ci kaw loolu ci laa woo ministre Mansour Faye ni ko population bi dëkkee foofu de mer nañu lool ndax dañu yeewu suba rek ñu ne leen liggéey bi taxaw na te teguñu dara ci seen loxo te xamuñu fu ñuy jooytoo seen mbir naam dund nañu ay jamono yu metti ci poussière ci garab yi ñu dagg ci barrière yu ñu dindi ci lëndëmaa yu mbedd mi ci jafe-jafe yu bari yu tar ministre bi jéem woo directeur Ageroute pour lëkkale ko ak moom pour mu wax ma mbir mi nan la demee mais bis boobu jotewu ko ca suba sa laa gis ni directeur Ageroute muy Ibrahima Ndiaye woo ma ni ma dama laa bëgg seet si waxtaan ak yow ci mbirum projet boobu waaye may ma rek ma gisee ak ñi nga xam ni ñooy entreprise yi waroon liggéey loolu muy matière ak énergie bu ma gisee ñoom ba noppi dinaa ñëw ci yow ñu waxtaan ajuma bu mu waat ma fedd li ma loolu ni ma altine dinaa fi ñëw ñëw fii ñu waxtaan moom ak équipe am yëpp ñu wax ma li mbir mi demee yëpp ni ma nag lii nga xam ne jot nañ koo def bëgguñoo ko bàyyi nii rek dafa am leneen lu ñu gis ni war nañ ko fay def muy projet bi mu ma lii nga xam ne ay aménagement la dañuy defaraat tali jëmbal jëmbaltaat garab yi nga xam ne dañ ko fi dindi woon taaralaat béréb bi def fa ay pavé def fa même ay parking yoo nga xam ni nit ñi daañu mën di gaaree foofu ci seen oto donc bu fekkee nii ñu ko waxee nii la demee lii de wax dëgg yàlla lu rafet la te nee nañu ma liggéey bi aussi dañu bëgg ay bis bii ñuy ñëw ñu tàmbalee liggéey bi ñëwu ministre bi rek lañ doon xool lañ doon xaar pour mën a tàmbali liggéey bi ndax dañuy bañ buñ ko tàmbaliwul ba nawet bi ñëw ndox mi bu ñëwee foofu mën na indi njàqare ak jafe-jafe yu métti métti lii daal moo doon solo euh, visite bi bi ñu ñëwee aussi déglu nañ leen ñu wax ñu mais déglu nañu aussi askan wi wax seen naqar ak seen métti ak li leen jafe-jafe yi ñu dundee moo xam agirul la moo xam ministre bi ñoom ñëpp nangu nañu ni manque de communication amoon na ci mbir mi ba looloo tax man. ci sama cëgal bopp démb bi ñu ma waxee daañ fi ñëw tey ñama joteel wax naa leen ni ngeen ñëw fekkee mbir mi woo naa délégué de quartier bi ni ko na nga ñëw teewee woo naa ña ma daan jokkaloo foofu ni que ne leen na ngeen ñëw teewee te ba ñu ñëwee teewee déglu nañu wax nañu leen metti ministre bi dégg na ko looloo tax bu ñu ci jógee la ma ciy jàngat mooy joxe naa dogal ni nañu leen woo ñu dajeek ñoom fii ajuma pour ñu xool lan la ñuy jàngee ci visite bi ak lan mooy seen jafe ak seen métit pour ñu taxawal benn kuréel boo xam ne euh, information bi dina mën a jàll lépp li nga xam ne moo ci xew ñu fekk ko xam ko ba tax na mbir mi dana mën aw yoon naam am na ay jamono sax seen mbokku taskabu taskatu xibaar yi ñëw nañ ci man di ma laaj ma ne leen mënuma cee wax dara parce que aw dara lu jóge ci nguur gi lu may wax ni lii moo tax ñu téye téye projet donc lii la mbir mi demee donc di wax ni réew mi dafa toll foo xam ni lépp looy def ak ña ngi koy defal ak ña ngi koy defandoo da nga ko war bokk ak ñoom toog ak ñoom waxtaani ko boo ko defee rek jàmm nu ñooy mais gannaaw ay nag jàmm te ñun jàmm rek lu ñu bëgg suñu commune jëm ci kanam rek lu ñu bëgg suñu commune taaru rek lu ñu bëgg mais lii ñu ñu bu fekkee ni nii la ñu koy defee mu mel ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp war nañ ko rafetlu ànd ci mais wat gaal nag ak yóboo looloo tax wax dëgg yàlla ñuy rafetlu ministre bi di remercier ministre bi ci visitam di remercier préfet bi di remercier directeur d'étude euh, monsieur Aw mais aussi di remercier waa BRTB ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi ci liggéey bi ci kaw loolu sax euh, sëq naa fa waxtaan wu gaaw ak directeur u étude monsieur Aw ni ko coow lii am ci marché Castor bi yéen mën ngeen ci am saafara saafara bu mooy comme que ay tali lañ nañu fexe ba tataay di jaare foofu ba ñu fay jaare rek lal beeg toogaayu mbedd mi dana jeex te jox na ma ci ay tegtal yoo xam ni dal na xel nee na ma dana ma yónnee ki nga xam ne moom moo yor plan de circulation bi pour ñu saytu xool naka lu ñuy mën def ba mbedd moom ñu mën ko bàyyi oto yi dafa jaar di ma ko dikk comme démb nu mu meloon. liggéey bi aussi dana indi beneen xar kanam bu bees ci commune bi. ndax am na beneen autopont boo xam ne ñu ngi koy def fii ci front de terre bi ci carrefour bi foofu ah boru brioche dorée bi bu ñu fa defee oto pont boobu xam nga foog ñu xàll ay yoon pour oto yi di mën a jaar bokk na ci yoon ya ñuy xàll am na tali boo xam ne ñun namoon nañ ko goudronné depuis lool mooy tali bi ñuy wax mbedd jumaa gayen incha allah daañu ko goudronné defar ko ak yeneen mbedd yoo xam ne ñu ngi féete foofu pour oto yi di fa jaar le temps ñuy li ñuy mottali liggéey bi bu liggéey bi demee ba jeex nag ñu xool plan de circulation bi ni ko directeur u CETUD bi waxee nan lay amee ci euh, wàllu woowu ci Castor donc dana soppi xarkanamu euh, commune bi mais surtout xarkanamu Castor lay gën a soppi te dana ko taaral aussi